yàlla mbooleem lu ñu fi def lu nekk suñ boroom nangu ko te ful ko di ñaan yàlla itam ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim te eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñi ñëw ñëpp dellu ci jàmm ak salaam jërëjëf oustaz xam naa liñ programme woon lépp sax waxtu wi du ko du ko mane fi teew xaw a takku léegi te am kilifa yoo xam ne faw danañ jël ay kàddu joxe ci seeni xalaat joxe seeni participation faw ñu ñu gàttal kon ñu jéem a tàmbali njàng mi rek laa woo xale bu ñuy wax Serigne Fallou Gaye Serigne Fallou Gaye mu jàngal ñu ay ayat quraaniya ñu tàmbalee ko dugg nag ci programme bi. bis. ñaan yàlla suñu fan yàlla ko yàlla barkeel suñu paree dinañ jël kàddu bi jëlloo ko sëriñ Sass Alxaaji Ba mu yore njàngum alquran mi suñu demee ba midi midi moom jot na ndax tardement am na ba une heure danañu jox xale yi ñu def animation bu ñu defee animation ba pare ñu jox ki nga xam ni moo yilif daara ji mu jàllale parole bi nga xam ni moom la war a jox joxe suñu paree ñu dem julli ji suñu julli jee ba ñëw xale yi nga xam ne ñoo mokkal ñu commencé ci ñoom incha allahu taala déglu lenn ci ñoom suñu paree autorités yi nga xam ne ñoo fi nekk di kilifa di ay ay ay mag di boroomi xam-xam di sëriñ ni daara di imam ñu ngi fii ñu jox leen kàddu yi bokk na ca al oustaz Cheikh Bara Fall bokk ci ñi nga xam ne ñoo jiit ñoo ñoo doon taxawu sëñ ma paate suñu paree ñu dem añi bu ñu añee ba pare dellusiwaat jàng nekk fi continuer programme bi ba 17h ñu ñaan yàlla na ñëpp rek toog ba ñu yàkkamti ndaxte borom xam-xam dañoo wax ni yonent bi sax moo ko wax mu ne julusu ko saatan fi majlisil ilmi xayrun mina dunya wa ma fiha nee na nga toog benn waxtu rek ci jotaayu xam-xam moo gën àdduna ak li ci biiram kon nag baas bi lépp lu fay toog rek na xam ni mu ngi toog ci jardin aljana yi malaaka yi ñu ngi koy bindal tiyaaba ñun ñëpp ñu bañ a yàkkamti ànd ak dégloo ndax bis bii kat amuñu bis bii te bis bi nag sëñ ma paate bañ a sonal nit ñi moo tax at bu nekk defu ko ba mu ko gëjee def léegi yàgg na kon ñun ñëpp nañ ko dimbalee leen rek ñu toog bañ a yàkkamti ba programme bépp jeex loolu daal loolu lañ doon ñaan ci ndigalal kilifa yi nga xam ni ñi ngi fi euh, bokk na ci sëñ Ousmane Gueye bokk na si ñaar yu sëy xam naa ci kanam tuuti buñ commencé liggéey bi sëñ Abdourahmane dana ci ñëw kon ñu delloo micro bi al oustaz sëriñ alxaaji ba mu wéyal programme bi kon bismillah kon ñu daal di ne yoxuus rek ci programme bi woo sunu benn mbokkum ndongo mu ñuy wax Mor Mbaw Mor Mbaw nga ñëw fii tareel ñu bismillahi rahmani rahim ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما allahul azim Serigne Saliou Faye yow yaa ñu jàngal bismillahi rahmani rahim alqariatu malqaria wa ma adraka malqaria بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تقدس أخبارها بأن رب بكى أو قيلها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا ما لهم فمن يعمل مثل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 فوسطون به جمعا إن, إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بصر ما في القبور وقسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. bismillahi rahmani rahim wadduha wallayli idha saja a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim شيئا أنتم أشد خلقنا من السماء بناه رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان من يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ماء وغسقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون قصاصا تخشي فأنت عنه تلهي كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في سقف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا صدق الله قرن رأوا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الله ومعه أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف ضعنا طريقا فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وقال الشقيقين ورب المغربين صدق الله yow